ko fa ci sëñ Fallu yeggoon kenn mos fa yegg mas naa wax ne sunu waa la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam nga xam ne waxtu gàtt la woon yoo ne ci daje asalaamaaleykum du gudd la wax ñu ne teg mu ne ji moom la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam kii nga am kenn a ko kii nga kenn amu ko kenn amu ko sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn a ko kon nag di ko sant bu baax Alaaji Fallu Mbàkke nee sëñ dul ñun ñëpp am nañ ci ma si jàpp bu baax mm. man de yaakaaruma lan lu sëñ Tuubaa mii rek kii ci barag bi rek keroog ba ko Mamadou Diané kii laa def ministre défense mu ne ko kii de du défense défense day ngi ci baraag bii oh, loolu la ko wax. keroog ba muy ànd ak Senghor rek dana ku ci jëkk tudd la géeb sëñ Touba bi rek ma ànd ak yow man sëñ Touba rek la am Lamine Gueye dikk mu gànnale ko ba ngan gaag mu jox alaaji ma yoro faal fanweeri junni ne ko joxal ma ko ne ko maa ko dimbalee ci loolu muy wër. mooy euh, Lamine yëpp ci poosam ne ko bu ne ko damaa ànd ak Youssou Mbargane ak Adama Lo waaw na leen yëpp ñu teg ci ay bi Senghor dikk mu ñëw toog dañu añee bay war a noppi mu génne waat loolu jox ko ne ko yotal ma Senghor Senghor xool enveloppe bi ne ko lii lu mu ne ko sëñ bi la ko jox la koo dimbalee mu ne ko baax ba muy tàggu sëñ bi mu génne amulo bi ne ko sëriñ bi teraanga di su ko dellu waaye nag lii defal ma ko ci seen liggéey jumaa ji te bu ma yi dinaa leen ci jàppale sëñ bi ne ko indi sa loxo man ànd na ma ak yow man liggéey bi bu ko tudd rek ànd na ma ak yow léegi it mosu ñor nag lu dul liggéey bi sëñ dara bëggul dara liggéey bi rek ko ñor nee na woon liggéey bi ak dëkkam bi ak bisam bi ñett yi rek a ma ñor ndax yooyu la ko sëñ Tuubaa dénkoon. jumaa ji noppee tam dugg ci biir barabu sëñ bi di ko wër. da caa bokk waxi wolof jum doon wax moom sëñ Fallu da doon wër barab bi naan ko Mbàkke fii lañ toll tollale la fi buñ ko weesoo weesale ko ndax loo jurut amut loolu day day wone ak bëggam Sëriñ Tuubaa ndax loolu loolu bokk na ci li mu doon wëree barab bi. lu ko lu ko waaye masa naxee ci Sëriñ Tuubaa mu nangu na ko li ngay wax du dëgg waaye tudd nga ci Sëriñ Tuubaa rek la nga wax da da koy nangu ndax day am day xam ay na xam di ca tàbbi. waaye dafa wut am imprimerie dem ba des ci téeméeri junni dikk ci moom bind ko bu leetar ne ko maa ngi lay nuyu di la sant te di la yaakaar te sama soxla si mennum yow laa ci yaakaar mennum yow laa yaakaar ci ne boo ko amee su ma la ko waxee danga ko faj damaa am soxla si téeméeri junni ndax damay defu imprimerie biñ dikkee di naan si ataay ci suba gi sëñ bi wane lettre bi ñu ne ñoom daal ñu tàmbali waxtaan ñoom daal dañuy dégg lii nangam ak nangam sëñ bi ne déedéet danaa ko jox de waa jii de du ma ëpp fit xanaa da ngeen déggu li wax yow rek laa yaakaar ci ne am nga ko yow rek laa yaakaar ci ne am nga xol bu ko mën a joxe te ma am ko te am xol boobu dama koy jox kat waaw daal di wëlbatiku daal ko koy jox nga xam ne dama ko ne yow rek ci yow laa gis koy xam ne na xam di ca tàbbi waaw doo jéggi sa menn yeer suñ fal du jéggi menn yeer xam nañ na xam nangu cee tàbbi Serigne Fallou nga ci daawul def dara lu Serigne Touba lu Serigne Touba santaane ak taalibe mu fonk Serigne Touba mas naa wax fii ci kër ci këram gi Serigne Aliou Ndiaye Guèye la ko waxoon boobu dafa julli ba sëlmal daan na ko boo gisee duma fonk dara borom baraag bee tax daan na ko fii ba makka bu téere yi lakkoon ci jamono ñett ko mën a sopp yeesalaat sëñ mut dem sëñ mut buusa ca Gede muy bàyyi sëñ maam buusa ak sëñ mut dem ca njaarem ak nun ñuy toog waaye nun jaay na lépp jënde ko borom baraag xam na kon wane na ne bu dee xam-xam moo fi raw waaye jaay na ko jënde ko Cheikhul Khadim mooy la ko gënaloon ci lépp lu mënoon a doon ñaari doomi soxna yi ñëwoon kenn ko ñu jóge ci barab ne ko ñun kat dañoo gént bi ku ne daa gént sëñ kii net yi kenete ñu gént sëñ Tuubaa ne na yéen na nga dem ci sëñ jox la nangam kenn ku nekk mu la moo xam jox la ma bañ bañ bañ dem man leen xee ñu ges man leen gis leen kenn kat kon danaa xam ay naxam ba na fi na ko cataab lépp mooy bàyyee gum ba bàyyee bopp sëñ Tuubaa ak jox ko ko jox léppam man nii di wax ak yow jaar naa ceeg moom ay yoon ndax xëyee naa daaru musi dikki ne dama soxla ñetti junni bi ma dikkee ma toog ba ñu wootee ndékki li ma ñëw ñu indi ndékki li ma bañ a lekk mu xel yaataay yi ma bañ naan mu ne ma topp si lu mu doon mu ne ko damaa gént ci sëñ Tuubaa bii mu ne ma boo demee ci sëñ Fallu na la jox ñetti junni mu daal di poos bi daal génne ñetti junni jox ko sëñ Ousmane rahmatullahi alayhi ne ko ah yow de bu subaa ñëpp danañu gént mu ne ko Ousmane yow mii lay ton dafa am aswaay soo xam ne nag maanaam moom nga jëkk am cib taalibe moom nga jëkk def lii moom nga jëkk def laa te dafa tumu ranke waa kër mi tumu ranke te daal sonn na te ba mu ànd ak yow dama lay wax nag bis bisu tey ji la tax aswaay daa jóge njaarim dikk ni ma sëñ Tuubaa nee nga jox ma faxay pepp ma woo ko mu ñëw ni ma ak ah, kii di gisul sëñ Tuubaa daal di yàq sam xel ñemeetuma bàyyi waa ji te kii yàq na sam xel ma téye ko ñetti fan dem njaarim naka ma jox sëñ bi loxo rek mu ne ma baa ma la booyoon jox nga ko faxaja man naka naka sëñ bi bàyyi sama loxo dem ma toog fa ba sëñ bi julli ji takkusaan ba dikki fekkaat ma ko ne ma kaay dellu ëllëg lu la naxa ci man nanga ko te xam ne kooku naxul nee na ba ma dikkee ma fekk fi ñu jox ma fi mbaam ma jox ko faxay pepp ja ak mbaam ma ne ko boole naa ci mbaam mi demal daan ne kooku ne yow génnal sama kër demal bëri sa bopp mu ne ma lee tax بمرفياتي قريبة الشيخ بامبا سلاياتي